asalaamaaleykum euh, mbokk internet Sénégal tey nag euh, yéen a ngi jàkkaarloo ku naan euh, Ismaïla Diop di agent ca RTS nekkoon doon animé émission bu ñu wax xel du doy ak daj kumpa tey nag bu Sénégal defee déplacement bu rëy bu toll nii pour ñëw seet si ko c'est pour waxtaana ak moom problème yi am ca RTS Ismaïla Diop mbokk internet Sénégal nuyu nañ la. Thierno Malick maa ngi lay nuyu di nuyu seen téléspectateurs yi. ak seen téléspectatrices yi nga xamee ne ñoom ñooy seetaan seen télévision bi di Sénégo di leen féliciter aussi ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen a ngi koy liggéey te mu feeñ ci réew mi feeñ ci bitim réew euh, di leen féliciter bu baax di leen encourager aussi. ginnaaw euh, ba ñu la nuyoo dañ koy def euh, nit dañ kumpa lan moo xew RTS. waaw RTS li fa xew kersa la sax ci ñun ñu di ko étaler ci média yi gàcce la ci ñun ñu. génnee ko ndax waroon na mën a nekk li ñuy wax póotum biir euh, mën naa ne RTS li fa xew euh, neexul kenn neexul agent neexul téléspectateur neexul kenn euh, ci réew mi te jàpp naa ne it ñi nga xamee ne tey ñoo liggéey RTS ba RTS am fu mu toll di sunu papa di sunu yaay nga xamee ne tey mën nañ ne xëy na tey la neex wala boog donte ñoo ngi dund ay jafe-jafe ñoom ñu traversé woon ay moment yoo xamee ne takk seen ndigg ñii takk seen ceinture ñu samp RTS taxawal ko ba RTS am fu mu àgg yaakaaru woon ne bu ñu ñëwee ba jamono jii ci RTS dana dund moment yi nga xamee ne daanaka kenn mënu koo wax kenn munu ko nettali mooy bu ñuy wax mooy RTS moo ngi traversé des moments yoo xamee ne ci histoire RTS musuñu ci àgg musuñu ci yaakaar bu fekkoon na nag dafa yem rek ci li nga xamee ne tey ñun amuñu ci responsabilité mais dafa nekk loo xam ne dañ ci am responsabilité moo tax ndax syndicat la ñu am bu ne ci kër gi jàkkaarloo ak direction générale daan waxtaan ak moom daan diisoog moom daan ko xelal mu daan am lu mu ci jëfee am loo xamee ne bu ci àggee mu ne moom lii responsabilité boppam la da koy jël en charge ñuy waxtaan di pelloo ñu dem ba jëmmi jamono loola dakk mu nekk at ñuy muñ ñu ñuy bunduxataal ñuy muñ ñu ñuy toroxal ñuy muñ mu dem ba àgg foo xam ne nag eh, jàpp naa ne bu ñu jógul wax ko jóg wut ci saafara danañu toll foo xamee ne fa nit ñi yëgee wala fañ ciy wutee solution day fekk béy woy mbuus moo waral coow lii nga xamee tey am na ci RTS muy syndicat boo xam ne dafa taxaw jàkkaarloo koo xamee ne dañoo waroon a yërëm dafa waroon a jàppale travailleurs yi dafa waroon a soutenir travailleurs yi dafa waroon a may jàmm travailleurs yi waaye dafa ñëw ngir ni ma gisee mooy ak ni muy doxalee laay wax euh, mooy dafay détruire ay ñoo xamee ne sen carrière dafa des dix ans ñii quinze ans ñii vingt ans bu doon ne dafa tegu ci dëgg wala mu tegu ci njuumte mais dafa tegu ci lu dul doole tegu ci loo xamee ne xoqatal la te jàpp naa ne nit dana toll foo xamee ne dafay lànk ci loolu la ñu toll RTS. jafe-jafe yi kañ la commencé biir RTS. Euh, jafe yàgg na RTS. Mhm. àdduna aki i jafe-jafe am mhm. mais daan nañ toog di waxtaan. Mhm. dañu dem ba mu yàgg toog waxtaan boobu amatul. moom mu jàpp ne léegi yàlla may na ko doole. moom kam moom directeur général muy Racine dem ba jàpp ne ñi ko wër au lieu que ñu dimbale ko. ci luy oyofal jafe-jafe njabootam au lieu que ñu dimbale ko ci li nga xamee ne moom mooy jàppale njabootam au lieu ñu dimbale ko ci luy tax RTS àdduna bépp mën koo seetaan au ñu dimbale ko ci luy tax ñu naw RTS waaye dañ koo jàppale ci ay pratiques yoo xamee ne moom it mu nangu ko ànd koog ñoom pratique yooyu nag dalul ci weñ comme ni ma koy waxee dalul ci miir mais ci ay nit la dal nit ñooñu nag ay agent la ñu mooy dem ba jël kër gi daanaka def ko moomeel te jàpp naa ne nit sa këru bopp gi nga moom sax doo ko doxalee nii mu koy doxalee waxumaa laak nag loo xam ne Sénégal yëpp ko bokk muy RTS Sénégal yëpp ñoo ko bokk moo tax ñu jóg taxaw sacrifié wu nag parce que mënoon nañoo toog di mëq mënoon nañoo toog fa mu gën a nooyee mais dañoo préféré bàyyi lépp ñàkk lépp ànd ak ñoo xamee ne dañoo gore ngir sauvegarder intérêt kër gi ndax moom day dem bàyyi ñu fa ndax tey koo xam ne retraité nga toog biir RTS di agir ci avenir ñoo xamee ne comme ni la ko waxee dese leen ay 15 ans 10 ans 20 ans te li ngay doxalee ci seen ñoom daanaka mooy di leen di leen toroxal di leen bunduxataal xataal euh, yóbbu leen frigo ñoo xamee ne tey ñoo ngi toog fukki at ñëwuñu biir RTS te ñoo ngi leen fay salaire ñoo xam ne toog nañ juróomi at ñëwuñu RTS te ñoo ngi leen fay salaire ñoo xam ne toog na ñetti at ñëwuñu RTS te ñoo ngi leen fay salaire buñ la wàccee bu la yàlla mayee fan wu gudd retraite ngay duggaatee RTS ñoo xam ne nag dañoo sacrifier seen àdduna tey figure emblématique yi comme ni ma koy waxee te newoon RTS gisatu leen ci kenn ñii censuré nañ leen ñii mënatuñoo muñ dem nañ ci ay ministère ñii mënatuñoo toog parce que xajoowuñu yenn yi démissionné nañ ñii mënatuñoo muñ xajuñu ci ku leen di toroxal xajuñu ci yenn pratique yi ñu préféré dem seen kër tëdd te jàpp naa ne nag dafa ëpp ndax buñ demee ba toll ci mbooloo mu toll moo xam ne kenn mënu koo nat ñu toog seen kër ñu leen fay mënatuñoo liggéey muy ay journaliste di ay technicien di ay animateur di ay producteur ñooñu ñëpp jàpp naa ne jot na ñu ne lii ëpp na jaay doole gi nekk RTS te Racine Talla di ñu ko teg mm-hmm. ëpp na yamu ca syndicat partenaire la war a doon. bu ñu la ci wax dafa dafa mel ni problème bu am bi RTS yëpp Racine Talla mooy responsable. mais moom lañ dénk RTS. moom lañ dénk RTS mooy kilifa RTS. mais moom ban jafe ban jafe-jafe la bay doxalee nii. Euh, jafe-jafe moom gëw ma ne moom war na koo mën a am. ndax li may faral di wax ne bu dee ci ay condition de travail. mettre nañ ko dans des conditions yoo xamee ne muy l' état waroon naa mën a tey yóbbu RTS foo xamee ne Sénégal yi dañ ciy gis seen bopp. waroon naa mën a tey jàppale njabootam ba kenn duñu dégg ndax ñun ci njabootam lañ bokk ndax tey bu wàccee dafay ñibbi ci këram waa këram buñ fa daanoon ci jàmm ba ñu nit sax bu fa doon métti du nelaw day jóg ànd moom yóbbu ko hôpital tey bu ñëwoon ñu ne ko sa njaboot a ngi ci jafe-jafe dafay bàyyi la def dem toppatoo ji ñooñu mais ñun njabootu jàmbur la ñun dañoo am ndey am baay am ay sœur am ay frère doon ay citoyen dëkk ci réew mi yam feeg moom sañ-sañ yàlla def aussi ma koy faral di wax bu politique bi mu def du jiite borom xam-xam yi nekk ndax bu dee xam-xam rek néew ma amul xam-xam mais am na ko mais ñu ko ëpp xam-xam a ngi biir RTS. tey ñoo xam ne tey mën naa leen lim ñoo xam ne dinañ yóbbu au frigo sacrifier seen adduna sacrifier seen avenir maa ngi ciy lim ku mel ne docteur ma Massiga Diouf. un docteur ci xam-xam bi am fi mu toll ci adduna fi mu toll ci réew mi dix ans nga écarté ko Oumy Ndour nga xamee ne tey culture. li mu defal réew mi defal ko RTS nga xam ne sax ni ñi dañ doon identifié wu ci image yu Oumy Ndour ci taxawaayu Oumy Ndour journaliste bu mel noonu dund ay pratique ba mujj ki mënu koo muñ mu daal di ñëw démissionné dem ñoo xam ne mënatuñ faa toog ñoom Louis Philippe Sagna fan la ñuy mujj dem génn RTS dem wuti leneen mais am na ñoo xam ne mënuñoo génn RTS RTS la am mais am na ñoo xam ne tey du jeex xadi ay dara lim naa ko tey ñaata at mu nga tëdd këram ci jigéen te jàpp naa ne soxnaam bu nekkoon ci jafe-jafe dana ko taxawu ay Aidara jigéen la di nit ku diiñ ay Marème sàmba ay jigéen lañ sama sama sœur Fatou Sakho traversé na fi ay moment yoo xamee ne tey gëm boppam nag di nit koo xamee ne ñoo ngi koy gërëm di ko sant ci courage am mu affronté ko ba tey lu ci bari weesu ak mu du moom rek Abibou mbay journaliste la dégg naa directeur bi mu ne amul benn benn nit bu ñu yóbbu frigo Habibou Mbaye ñaata at ngi nii ñaata màggalu Touba dañ koo écarté ci ci ci ci ci lim gëm ci tey bu moo daan def lépp mais neexoo wut ak général yow demal frigo Abbas neexoo wut ak directeur général doo wax ci télé bi bokkatoo ci. Maimouna Ndiir mi nga xam ne dañ koo jëlee woon Walf Fadjri mu journaliste bu mag écarté tey boo demee rajo mën naa laa limal ñaata journaliste ana Khalil Naar Fall. bu ma jógee ci Khalil Nar Fall ana euh, euh, euh, Cheikh Diop ana sama yaay Maguette Diop mi nga xamee ne tey addunaam gépp da koo jox RTS ba ñu war koo teral ñu jël ko te am na ñoo xam ne kenn munu leen a humilier du jeex ma naa la limal limal limal nee na yóbbuwuñ kenn frigo man mii de wax ak yow wax naa la ko. Mhm. un e et quelque ngi nii. ci lool lañ bëggoon ñëw ndax lim nga ñu bari mais gisuñu nga lim sa bopp te gis nañ ne depuis quelque temps gisatuñ la ci écran te saa suñ la daan gis lan moo xew exactement. Euh, li xew mooy euh, bugguma jiital sans bopp man damane comme li may wax Abbas souvent des fois sax day wax ma ne ko Abbas man je préfère ñu nekk sacrifice ngir sunu mag ñi nga xam ne dañoo liggéey RTS sunu papa yi nga xam ne dañoo liggéey RTS sunu collègues yi parce que ñi ma la limal ñëpp ay journaliste lañ moo tax ma am gàcca bi directeur bi génnee daal ne amul kenn ku ñu yóbbu frigo ñii ko limal ñëpp ay mbokkam lañ mën naa la cee wax Issa Thioro Gueye nga xam ne tey bu ñuy wax xam-xam ak taxawaay mais kenn mënu ko cee génne anamu écarté man sama cas bu ma la ko waxee man tey bu may am lu may lu may lu may lu may delloo njukkal wala ku may jàppale wala ku may soutenir Racine Talla la war a doon directeur général ndax embauché wu ma damay wax ne quatre vingt dix quatre vingt dix sept laa ñëw RTS directeur généraux ya a jaar yëpp ba ci ka a jiitu Gila Thiam fa ma fekk fa laa ko fekk ma nga daal ma ba ci moom mii fala ma fekk kon yàgg naa fa ku ko def ci boîte moom bi mu ñëwee yàlla def na ci moom laa amee pal kon bu may am lu may delloo njukkal Racine Talla la war a doon bu ma amee ku may jàppale Racine Talla la war a doon bu ma amee ku ma war a gërëm Racine Talla la war a doon waaye pratique yi duma ci xaritoog nit du ma ci ànd ak nit tey RTS boo fa duggee les gens disent que Ismaïla Lamida Racine mais dama préféré ami googu mu na am ko mu yàqu ci dëgg parce que dëgg rek muy mujj dëgg moo nekk loo xamee ne tey moom moo moom moo ci la ñuy nawee nit ci la ñuy jàppee nit te jàpp nañ ne àdduna toll na foo xamee ne tey nit ñi dañoo war a ànd ci dëgg kon man ki jàppale taxawu la maanaam nome la tey bu fekkee ne tey da ngay jàppale moom nga waroon a jàppale waaye boo bëggee détruire ay famille euh, détruire ay nit détruire loo xamee ne tey dañ ko fay liggéey fekk nga ko fi bëgg koo yàq dañ kumpa boobu ngay wax mm-hmm. mais mais dañ kumpa Sénégal yi lay demandé ñoom xam nañ lan mooy dañ kumpa parce que ñoo ko def seen émission bopp xel du doy def naa ko plus de vingt ans loo def plus de vingt ans mu existé di jàppale nit ci wàllu wér yaram di leen sensibiliser ci wàllu wér-gu-yaram ñëpp amuñu moyen dem hôpital mais émission boobu da koo dindi ci gri ñaata at un an et quelque xel du doy mu dindi dañ kumpa mu dindi ne maanaam man bu ma feeñati ci télé bi ñu écarté ma un an et quelque ma toog jàpp sama njàmbur jàpp sama ngor ñu xëy bërki démb xam naa bi coow li commencé directeur bi woo ma ne ma waaw mën ngaa reprendre xel du doy mën ngaa reprendre dem dañ kumpa ma ne leen mais lan laa def ba ngeen tere ma télé bi booba ba tey tere ko samay morom donc télé bi du moomeelu directeur Racine Talla dañ ko koo dénk télé bi Sénégal yëpp ca bokk loolu mooy sama problème te li tax nag ñu écarté ma parce que damaa bokk ci ab syndicat syndicat boobu nag moom wut naa taxawal syndicat bu koy xalamal di ko defal li mu bëgg bu gañe woon tey syndicat boobu moo fi ne mais dañoo dem ñun ñu gañe syndicat boo xam ne yow bi ñu ko bëggee directeur yi dañoo ñëw ñëpp di voté ci foofu laa gisee syndicat bu ñuy taxawal directeur bu jaral ko mu yendu fa di ñàq di rang wote yàlla def ñun ñu gañe mais fa la coow waroon a jeex nga ne noonu nañ la taxawalal beneen syndicat jël sa doole ak say moyens utiliser ko fekk ay nit ci région yi di leen jox kayit diw dangay ngay jógee ci syndicat bi nga nekk ñëw fi kooku ne la man sama ngor ma yu ma ko ndax du ma nekk syndicat 10 ans 15 ans di ko fi bàyyi dem ci syndicat boo xam ne xaw ma ndax am na ne ko non poste chef de département am nga naa la mu dàq juróomi chef de département ci loolu signé dañuy ñëw fekk la sa bureau jox la kayit ne la génn ci syndicat bi nga ne ñëw mu taxawal ñu taxawal ci kër gi benn kuréel goo xamee ne résidence Racine Talla la tudd ku ci bokk saagaal ndey xasteel dóoreel defal lu la neex dara du la ci fekk ñun ñuy liggéey ñun ñuy garder suñ ngor ñu ñuy toroxal mu jël syndicat bi yëpp wàccee leen buñ defee assemblée général day yónnee ñu jël nit ñi filmer leen sa patron moo lay woone ne la ah yow chef de service nga ah man mënu ma ci dara mais patron bi neena ci man nga dépendre donc nangam nangam ñu wàccee la Mamadou Thior bu rajo Cheikh Diop ñooñu ñëpp ana ñu tey kenn nekkatul RTS ñëpp a ngi toog sa secrétaire généraux yu nekk CNTS ñoom ci la ñu bokk wala ñoom ñu ngi liggéey ba léegi. Euh, tey euh, bu dee ne maanaam ci secretaire généraux yi ñoom euh, syndicaliste yi dafa am CNTS ak SYNPICS. Mhm. ñun nag dañ ne kër gi mënuñu fee ne di xaajoo nañ ko def intersyndical ñu boole ko def benn di xàccandoo di dóorandoo lu am ñu waxtaanee ko ñaar ñi ma la limal mooy Cheikh Birahim Ndiaye bu CNTS chef de département la dañ ko wàccee. wàcce wuñ ko ngir amoo compétence de dañ ko wàcce parce que daa bokk ci syndicat kii di Moustapha Cissé dañ koo wàccee muy gor comme Cheikh Ibrahim dund lu ne ñu teg ko lu ne mu nangoo nag di dignité am ak ngoram ñàkk lépp ñu wàccee ko képp kuy membre muy CNTS muy SYNPICS ak loo ay aay ak li may koy faral di wax. Mhm. ak koo man xoolal bu dee ci football bi. jàpp nañ ne Messi ak Sadio Mané moom bu ñuy lim ñi mën a football ci réew mi mën ci àdduna bi mën nañ cee boole mhm. tey bu fekkee ne ñii limal nii ay Sadio Mané lañ ak ay Messi jàppal ne moom wàccee na leen ci poste yi ñëpp la wàccee ñëpp yematu ca membre yi nga xamee ne tey mu naa ma ko dañuy cotiser rek mhm. bokk ci syndicat bi di ko dooleel bu ñu wootee sitting sitting biñ biñ def mhm. dañoo def sitting chauffeur ya fa woon yëpp mat nañ neuf et quelque ñu jël chauffeur yëpp affecté ñii Casamance ñii nangam xoqatal ku yor post dañuy ñëw ne la poste bi nag ñaar moo ci ne condition bi mooy syndicat bi moom doo am ak ñoom jàmm da ciy génn mais gars yi di bind ay lettre de démission di génn ci syndicat yi ñu bokkoon membre kese boo ko mënta doonate ci biir kër buñ demee ba maanaam mënatoo am sañ-sañu doon membre syndicat moo tax ma wax ko ne ko kon danañ dem ba boo nekkee tijaan ñu wàccee la boo yoree post wala ne la dootoo liggéey boo nekkee murit ñu wàccee la boo yore poste ne la dootoo liggéey boo nekkee te bokkee ci jàngu bi ñu wàccee la ne la dootoo liggéey donc dafa nekk loo xamee ne li am RTS moom ku ko wax ñaar moo ci ne mooy ragal ko wala wax ko jaaduwul te ëpp na ñun jàmm amatul dem na ba climat social bi moo ngi yàqu tey am na ñoo xam ne tey ñoo takkaliwoon nit jabar mhm. tey bu amoon doom ñemewuñ faa dem wala sañuñu faa dem mhm. koo xam ne yow tey boo amoon dëj am na ñoo xam ne duñ la tey jaali si suñu mag yi nga xam ne ñoom lañ am bala maa dee bu ñu toogee ci télé bi bu nit génnee àdduna rek ñu tebal ko ab photo diw euh, nangam nangam te ñooñu maa ngi wax ne ñu baree ngi fi tey ñoo xam ne tey génn nañ àdduna ñu mënoon a del si niñ leen def RTS ak niñ leen toroxalee buñ mënoon a del si jour boobu génn ci bàmmeel ñëw wax ne leen eh ne leen eh, sama photo bi wala hommage bi ngeen may rendre dindi leen ko ndax nit boo koy rendre hommage da nga koy rendre hommage ca ba muy dund mënoo mhm. ko ba pare di ko rendre hommage ci sanction yi ngay wax est-ce que tey le directeur Racine Talla ba muy sanctionné nit ñi am na ay motif yu mu leen di jox man de sanctionné nañ ma te amul motif lu dul syndicaliste nga mhm. Cheikh Ibrahim sanctionné nañ ko amul motif lu dul syndicaliste nga Abbas sanctionné nañ ko amul motif lu dul syndicaliste nga Abibou Mbaye sanctionné nañ ko amul motif lu dul syndicaliste nga ndaw sanctionné nañ ko amul motif lu dul syndicaliste nga Mohamed Faye sanctionné nañ ko amul amul motif lu dul syndicaliste nga Bamba sanctionné nañ ko amul motif lu dul syndicaliste nga euh, euh, euh, tey mën naa laa limal ku mel ne Bunwa sanctionné nañ ko journaliste la assemblée générale la ñëw Xavier nga xam ne tey journaliste bu mag nekk rajo Sénégal motion de soutien pour jàppale directeur Racine Talla mu bañ ne leen man du ma signé maa lànk ñu ñu wàccee ko toroxal ko mu génn bàyyi kër ga dem yoonam mm-hmm. ah pour lan ñoo xam ne tey mën nañoo jiite kër gi nga di leen toroxal ah mm-hmm. di leen humilier te tegoo ko ci fenn bu doon na da nga koo teg ci ay base yu leer mm-hmm. mel ne man nee leen bu ma defee faute nañ ma sanctionné mais nit boo koy sanctionné da nga koy def parce que dafa def faute nee naa la man moo ma ba mu may nome nommé wu ma parce que dama nekk ci syndicat nommé wu ma parce que syndicaliste la dafa maa nommé parce que agent la am compétence yi ba ma liggéeyee liggéey ba ba liggéey ba ba ma ñëwee ko wax dane ma danga am compétence yi mérito ko waaye nag damay faral dégg naa ñu naan non moonte ñoom Racine Talla leen nommé ku mën a indi sa nit 98 laa nekk ci kër gi ku mën a indi nit di ko yónni di ko defarloo kafe mu lay doxal say soxla nga nommé ko chef de département kuy doog a ñëw RTS ñu ne ca lay yem nga ne déedéet nga jox ko oto ñu ne ca lay yem nga di ko jox carburant ñu ne ca lay yem nga jox ko téléphone man ma fa def ñaata at vingt cinq ans wala vingt quatre ans lu ma war a doon ku mën a jël say mbokk ñëw def leen chef ci lu diir bu gàtt ñun ñu fa def vingt ans lu ñu war a doon tey am na ñoo xamee tey seen carrière gépp RTS lañ ko def mais mënuñu yenn yi ñun duñ bokk ci ay résidence racine ñun agent RTS la ñu doon comme nag daf ñoo bëgg a transformer ñu ñu bañ a doon ay agent ñu nekk ay militant am du ñun duñu ay militant am est-ce que mën nga revenir à expliquer internet lan mooy résidence racine résidence racine kuréel la goo xamee ne dañ ko samp ci biir RTS ñu am seen groupe di waxtaan di diisoo képp koo xam ne bokk ca bu demee ba résident racine ay directeur dañ cay bokk par force ab directeur di ca bokk di ñu ah, message whatsapp ah directeur laa la wax de di ca bokk wax naa la fii ne assemblée générale du SYNPICS ay directeur ñoo ñëw taxaw donte nee nañ ay agent lañ gis nga biñ ñëwee voté ñu gagné leen am na ci ñoo xam ne dañoo démissionné génn ci syndicat ba parce que ñemeetu ñoo bokk ci syndicat maanaam pratique yi muy def dañuy dem sax ba nekk syndicaliste dootu am ci Sénégal parce que ñaar la sukkandiku mooy toroxal mooy dalay dàq Abbas dégg ngeen may wax histoire am ñaata yoon ñu yóbbu ko ci inspecteur euh, euh, inspecteurs yi pour dàq ko pour licencier ko ñaari yoon mais ko yóbbu ñaari yoon pour licencier ko yóbbu ko police ñun ñu yóbbu nañu police ñaari yoon ñu yóbbu ñu ko ñu ñu ne dañuy licencier Abbas am na benn femme boo xamee ne RTS la ne di jigéenu Abbas bi ñu ci kanamu inspecteur ba dafa toog jël kafe ci thermos bi ñu koy auditionné yóbbul ko Abbas fa la fekk directeur yam yi parce que audition bi ay directeur am dañoo ñëwoon. ñun ñu dem bi mu ñibbisee ci suba ga lañ ko jox kayit ne ko wàccee nañ la te compétence taxoon ñu fal ko kon dafa am pratique yoo xam ne jëmalewul kër gi kanam donc kër gi dañ ko war a defaraat RTS suñ toll nii. dafa am loo xam ne rus nañ koo nettali nit di ko dégg mais dafa ëpp. nam mayee jàmm njabootam nañu ko mayee jàmm toroxal gi dafa doy fitnaal gi dafa doy jaay doole gi dafa doy au au au delà de personnel bi nekk RTS di dund lii ngay expliquer nii booy xool askanu Sénégal ci boppam ñoom gisatuñ seen bopp RTS te ñu ngi en deux mille vingt deux ñuy sentir même problème bu am RTS moom moo am tey le soleil le quotidien la soleil même chose aussi la ñuy dégg APS naka lañu mun a sàgganee tey ba toll foofu. waaw xam nga euh, dadul sax sax média détail yi nga xamee ne tey mit lañ woon seen sax sàggeekoo nii parce que nag ñaara ci ne ñun am nañ ci responsabilité léegi est-ce que dañoo war a toog ba mu yàqu wala dañoo war a toog bañ rey ñu ñu doog a wax am dañoo war a toog koo xoole ñi ko mën a muñ ñu leen di toroxal ñi ko mën a muñ ñu leen teg yenn fitna ñu bàyyi leen seetaan leen moo tax ñun ñu préféré doon sacrifice parce que dama laa limal ay ay ay ñi ma ñi ma limal nii du caaxaan mën naa laa defal lis ñoo xamee ne tey du jeex luy Philippe Sagna wax naa la ko mais ay ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñoo ngi ci kër gi ñu leen di toroxal di leen bunduxatal teguñu ko ci yow liggéeyoo Ibrahima Diédhiou xanaa ku ne xam ne na ne mën naa liggéey ah kañ ngeen ko gëj a gis ci journal 20 heures néew ma ña nekk ci journal ba mënuñoo liggéey de <laughs> ña nekk 20 heures allah. li ñuy xeexal ñooñu bis biñ ko tegee ñee ñu taxaw xeexal leen ko donc loolu moo tax ñun ñuy syndicat sunu problème mooy jumtuwaay yi la ñu war a def ba RTS nit ñi gis ci seen bopp mooy comme li nga waxee nii léegi mais Sénégal yi dañoo jéppi Sénégal yi dañoo mere est-ce que dañoo war a toog ba bu ñu tàllalee micro ñu damm suñu loxo ndax yenn pratique yi néewuñu politicien baaxul mais ñun suñu problème bi ñu am ki ñu indi dafa waroon bu dugg gisee ci kër gi mu summi mbubu politique am mais dafa ñëw ngir maanaam daal man naa ko wax mooy yàq kër gi dégg naa yéen ñoo ngi leen fay weer wu deewu ne mais weer wu deewu ne dañ ñuy fay ku jëloon it doo fay ci loolu nag la ñu bëggoon dikk ndax gis nañ ne ku mel ne tey njaag buñ ko déggee tey def na benn audio bu muy expliqué naan Ismaïla Diop ak Abbas li ñuy wax ci RTS dara amu fa RTS euh, malgré li ñuy wax yëpp benn coow amu fa parce que programme yaa ngi daw normal te salaire ñu ngi koy fay à temps euh, man nag dama am man fi ma ne man dafa am foo xam ne dama fa weesu la sama bopp man mënoon naa liggéey ba retraité kenn du dégg ci rajo kenn du ma dégg may wax du sama choix yaa ngi dégg dama gis ñuy noot ay ay kilifa ak doxalin bi moo tax man duma wax ci yooyu euh, salaire dama laa wax ne la 97. mais moom gis nañ daf la nommé dafa daf la site nommément. waaw ci ci audio ba mu def. xam nga euh, man hmm. sama rakk la. Hmm. c'est mon frère ay frère lañ Racine Talla day dem bàyyi ñu fi kon àdduna du jar mukk ma yëkkati kàddu wala ma wax ci sama rakk wala ma wax sama frère respecté naa aussi position maanaam fay salaire googu ah man damaa ñëw quatre-vingt-dix-sept lu ko jiitu tuuti musuma am salaire cachet lañ ma daan jox te cachet bi diggee naa ay at awma ko ci koo xam ne dañ daan synchroniser rajo Sénégal yëpp nga fanaan ci ma liggéey at wala ñaari at di ko def journal wolof yaa ngi may dégg bu baax. Mhm. di présenter journal wolof. Mhm. te kenn fayu ma. Mhm. bu ma daan paas sax daaw ma ko am. mais boobu dama doon jàng métier. ñu mel ne ñoom Mamadou Bal di ma formé ñu mel ne ñoom tonton Pape Si di ma formé ñoom tonton Asmalik di ma formé ay boroomi xam-xam. di ma formé ma jàng métier. sens bi ma am. wala boog li nga xam ne moom laa dund RTS mooy ñoom Abbas dañoo dem jàng ci école journalisme yi ñu euh, doon euh, am seeni i diplôme ñëw biir RTS man métier mi dama ko jàng ci ci ci terrain bi man du ma journaliste waaye am naa ci don am na ci man lu ma ci yàlla may kon euh, kuñ daan fey dix huit mille man dix huit mil lañ ma doon fay lima njëkk am ci RTS ci lu ñuy fay nit dix huit mille franc la ñu dindi ci TVA xaw ma deux mille et quelque kon mm-hmm. ay seize mille quelque mm-hmm. yaa ngi b bés ñu embauché ma ma ne fa di liggéey di liggéey di liggéey def fa ñaata at ñu xëy nome ma ki ma nomee wax naa ko aw ma ci kersa Racine Talla la moo tax ma ne la bu doon jàppale moom laa war a jàppale waaye jàppale nit ci dëgg ngay def doo jàppale nit ci lu dëgg Racine ku koy jàppale mooy da ngay naan ko mayel nit ñi jàmm yërëmal njaboot gi jàppaleel RTS ki ko fa teg sax coow lii arrangé wu ko loolu mooy dimbale nit mais c'est mon frère lu ma wax rek baax na mais l'essentiel daal mooy état moo ñuy fay. sénégalais yi ñooy dajale seen i impôt ñu jox ñu ko. kon moo tax ñu war a def loo xam ne sénégalais yi dañuy gis seen bopp ci télévision nationale. donc loolu laa am lu ma ciy wax. duma ko tudd parce que c'est mon frère. ñaareel ba ca topp mooy moom moomu di mon frère. tey ay dara bu muy ñëw RTS booba jàpp naa ne buñ juddoo it di kiyul euh, Khady Aïdara ñëw liggéey def émission ak Bouba nduur moom directeur général Racine Talla. jaar ci tere Xadi Aydara tele bi ñaata at Xadi Aydara tëdd di jigéen diiñ gëm boppam tey ka taxoon ñu censuré ko tey boo génnee jàppale sa directeur général xasal ko kooka saagaal ko kooka ñu fal la ndax loola ñu fal la ndax loola ndax ñun saagaaluñ directeur général pour feeñ ci télé ñun bi ñuy feeñ ci télé di wax ci télé booba parental lañ woon. Marème Samba formé ñu mooy ñii ma la wax jàppale ñu bañ doon liñ doon maanaam ñun ñëwuñu pour saagaal nit dem ci internet bi xas nit pour ñu ne ay léegi jox lañ ko émission mu di ko def. dégg nga ma bu baax ñoo ngi lay déglu bu baax dama la ñun. Mhm. saaga wuñ buuba nduur. Mhm. xasuñu buuba nduur. Mhm. pour ñu ne ñu léegi dee leen feeñ télé. ñun suñu émission dépendrul ci ñu xasal directeur nit ngir mu ubbil ñu espace ñu mën a feeñ. moo modeste nañ nag waaye am na lu yàlla def ci ñun am na luñ mën yaa ngi waaye luñ mën saaga bokk ci xasal nit bokk ci wàccee suñu bopp bokk ci toroxal suñu bopp bokk ci gënoon naa métti ñuy muñ mm-hmm. loolu ci la ñuy continuer daa gën a neex dama laa wax ne moom ma fal kon moom laa waroon a jàppale mm-hmm. waaye yoon wii day yàq RTS te yàq na ko mm-hmm. waaw ci ci ci ci yàq boobu noonu gis nañ ne li nga fi jot a wax yépp buñ ko déggee mooy RTS dafa nekk di dellu ginnaaw ndax fuñ ko teg ne dafa nekk di dellu ginnaaw mooy dèjà bu ñu demee ba lu tollook RTS di xëccoo ak euh, benn seen bu ñuy wax E-Media muy télé privé di xëccoog moom Droit TV euh, droit de retransmission pour euh, coupe du monde bi lan moo xew exactement ba loolu am. wax naa la léegi ne la ku mel ne tey Pape Atoumane Diaw. Mhm. nga xam ne doyen la moo jàng tey jàngal ñu bari journalisme. Mhm. ñu jaar ci loxoom mu formé leen. mais ñooñu tey mënoon nañoo jiite RTS. ñooñu tey. dañ leen a waroon teg seen place jox leen seen gëdd. anañu tey ñoo nga toog seen kër. parce que am na ñoo xam ne nag direct leen sonal. duñ dugg ci yenn yi wax naa la fii léegi Ibrahima Khalil Naar Fall. journaliste rajo la seen collègue la. moo tax bu ma déggee directeur télévision bi ne kenn newul frigo xëy na moom. frigo bi muy wax moo bokkul xëy na ñun ak frigo bi ñu ne. léegi nga ñëw ci question bi waaye. bu ma ñëwee nag ci mhm. droit yi. Mhm. man du ma juriste. Mhm. man du ma xaw ma lépp lu jëm ci wàllu droit xaw ma ko. man daal li ma xam. laay wax. lu jëm ci wàllu ay droit. ma xam nga yàgg nga ci télé bi yàgg nga gis ne télé bi moom droit yi moom rek moom moo ko doon am mais bu ñu nee ba toll si jamono ñu dem di ko xëccoog ñeneen. e xam nga tey foofa rek war nañoo xoolaat suñu bopp. maanaam ñun ñoo war a def taxawaay boo xamee ne doo wax nit ñi kaay leen respecté ma nit ñi ñoo lay respecté loolu RTS ko war a def maanaam RTS moo war a def de sorte que Sénégalais yi gis seen bopp ñaareel bi mooy institution la institution xam-xam a koy yor waaye du xëfër xëfër maanaam dafa am loo xam ne tey bu fekkoon ne def nañ ko jaar ko fa ñu war a jaar mais nag bu fekkee ne yow sa waay maanaam yow ñi la wër ñëpp wala ñi ngay jël ñi ci ëpp loo wax ñu ne way DG loo wax ñu ne <laughs> dëgg la kenn amul fitu wala sañ-sañu nga wax ñu ne la lii baaxul yoon wii nga jëm baaxul lii gënul ci lii lii war nañ ci anticiper mais ci lii rek ngay jëm cafouillage baaxul tuñ waruñu woon a toog ba naan ay diw am nay droit diw amatu droit di xëccoog di xeex ak am na ci yoo xamee ne tey management dañ koy jàng xam-xam la jiitey nit ay xar sax sàmm ko yombul ay xar sàmm ko yombul waxuma laa nag ay nit ndax kenn ku ci ne ak na ngay ñëwee kenn ku ne loolu xam-xam la Babacar Diagne yor na fi télévision nationale Abdou Khoudous yor na fi télévision nationale Daouda Ndiaye yor na fi télévision nationale euh, euh, Gilla Thiam yor na fi télévision nationale bari nañ ñoo xam ne tey jaar nañ ci kër gi waaye yii ngay dégg da ko mës a dégg mais ñun bu fekkoon ne tey ki am comme directeur ci ñun la bokk danañu def lii mu ñuy def surtout un retraité yow retraité nga ñu bàyyi la fi juróomi at. yëkkati juróomi million di la ko fay par weer yëkkati oto jox la mettre la dans de conditions yoo xam ne kenn mënu ko wax loo xam ne tey directeur général mosu ko am RTS je pèse bien mes mots mhm. kooku boo ñëwee doo yërëm ñiñ la ñiñ la booleel mhm. ñu ñu ñu ñu jeexalee sax nga woolee neneen lu xew mhm. waaye ñaari at yàlla nangu woo toog ak ñoom ñu jeexalee ci dernière question bi euh, parce que temps bu ñu cëraloon daanaka jeex na donc bëggoon nañu xam tey yéen ginnaaw coow lii yëpp lii yëpp am ni xew RDS léegi yéen lan ngeen di revendiquer lan ngeen bëgg exactement ndax yàgg nañ gis yaa ngi alerte la chef de l'État parce que moom moo fa teg ki fa nekk donc est-ce que boobu ba léegi am nga retour par rapport ak alerte yi ngay def ak lan ngeen di xaar lan ngeen bëgg actuellement euh, am nañu ci euh, retour mooy président de la république mooy per de la nation moom la ñu bind bataaxal muy ñaareelu bataaxal bu ngeen seetloo bataaxal bu njëkk bi dama ne ko sama bataaxal bu njëkk jëm ci moom ndax man mënumaa am audience tey bu ma mënoon a jote ci président de la république kenn duma ma dégg ci rajo kenn du ma dégg ci télé du ma ko bind bataaxal bu ma mënoon a jote ci moom wala ñun ñi nekkal muy syndicat bi mën a jote ci moom du tey kenn du ma dégg waaye ki jote ci moom danaan ko c'est des politiciens ñii dañuy politique kon ñun yéex na ñoo politique ku ne ci boîte ñu jàppale la ñaata at te problème yi gënoon a métti accompagner la kon jàpp naa ne bu ñu doon politique fa mu jafe-jafe nekk fa la ñuy politiquer kon moom miñ bind lettre lettre dong lañ am pour bind ko ko ndax jote wuñ ci moom bu ma jotee woon ci moom wala suñu secrétaire général yi jote ci moom bi ñuy def pose première pierre bu tour bi nga xam ne moom la ñuy tabax biir RTS mais président ñëw na fa waaye dañoo jëlee ay mbër fu ne jàppoon nañ sax ni ñun da buñ ñëwee dañuy noote mais dañoo civilisé dañoo ñëw toog en tant que agent lañ fa ñëw. toog président ñëw mais dañoo dañoo zappé maanaam président discours bi kenn ñu ci. mais ñun waroon nañoo jël parole parce que ñun ay partenaire euh, ñun ñun lañ koy defar ah nan lañ def mooy simuler daal di def seen genre bâche boobu daal di defar daal di ñëw président bi muy def discours tudd fa partenaires yi parce que joxuñu parole. joxuñ ñu espace bu ñu mën a exprimer woo daal di ñuy nëq suul ñu mais président buy teg lu noonu di ko tegal ay nit ñooñu war nañoo jël parole ne ko jërëjëf président waaye moom mi nga xam ne moom mooy directeur général. Ah, boo xoolee sax protocole bi dañoo lim émission yëpp a baax RTS. waaye nañ génn ñu def sondage les meilleures émission de la RTS booba ñoo ngi xeex ak man tudd ñu ma sa sax. waxuma nañ ma man bëgg ma ñu tudd ma Sénégal yee ma tudd léegi lan geen bëgg ginnaaw loolu li ñu bëgg mooy dañoo am suñu accord d'entreprise mhm. euh, accord boobu dafa caduc mhm. ñu di ko négocier ñaata at mu lànk ne di ko signé ndax ñaari point clause de mobilité mhm. mooy affecté nee naa la ki nga xamee ne day wut yat wum rayee nit boo ko ko jotee nit dootul dund ndax nee naa la dañoo teg assemblée général képp ku bokk syndicat wala kuy syndiqué ñu wàccee la amatoo poste bokkutoo ci dara ñaata membre ñoo fa ne ñëpp ñu wàcce leen yamu ca mu jël li nga xamee ne tey mooy bu ñu wootee assemblée générale wala ñuy wax ne lii naqari nañu ñu foto ñu yóbbu ñu xool nombre bi ñaata lañ xool ñi ci ne jël affecte ne la 24 heures nga fi am ngir génn Dakar yow say ñoñ nga fal leen say ñoñ nga nga yaatal leen say ñoñ nga jël leen teg leen ci ñoo xamee ne def nañ fi vingt ans 30 ans ku ne am na mérite. bërëb moom RTS ku fa sa wërsëg ne da ngay ñëw nga jël ko waaye boo mënee indi sa ñoñ indi ku la jege indi say xarit indi say soppe indi say jarbaat peut-être que ni ma ko mën a waxee. Mhm. indi ñi nga xam ne bëgg nga leen indi ndax am na pouvoir boobu am na pouvoir recruter ku ko neex. Mhm. mais boo recruter ñooñu mettre leen dans des conditions yoo xamee ne macha allah mais mayal nit ñi jàmm ñi nga xamee ne dañoo jël seen avenir sacrifice seen adduna. Mhm. ngir RTS ndax ñun nag ba métti lañ fa ne. RTS neex na léegi de RTS neex na léegi. moo tax ñu am fulla ne oto yii nga xamee ne tey ñun ñoo ko moom muy patrimoine de RTS ñu lank ne du génn kër gi parce que bëgg koo sukkandiku ci ay dëkk rek dégg naa directeur télévision bi mu ne oto de voiture de service euh, de voiture de fonction la léegi ñi nga xamee ne ñoo amoon voiture de fonction dañ leen koo cédé oto yi ñu yoroon franc symbolique nee na loolu la décret bi wax na ma génneel décret bi maa koy défier na ma génneel décret bi wax loolu mooy benn ndax nag comme toll ni directeur télévision moo mën a wax loolu na ma génneel décret bi beneen bi top topp même bu fekkee ne réforme la mais xanaa réforme doo jël oto yuy jar quatre vingt millions vingt neuf millions nga wanteer ko bazarde ko te yow amoo sax euh, oto élection yi ñu génn pour ñu couvrir élection yi amuñu oto dañoo jëlee oto yi ne ci région yi maanaam oto yi nga xam ne moom lañ jox chef de département yi moom lañ dajale nangu ji ko ñëw jox koy chauffeur chauffeur yi topp candidat yi kooku wala nga am ak doo ko yaxanal. Mhm. ci ci une minute euh, Ismaïla Diop ñu ngi lay bàyyi nga tàggatoo mbokk internet Sénégal. Euh, li may wax daal mooy euh, ñoom may interpeller Modou Guiro mhm. di interpeller ñoom Bamba kase mhm. di interpeller Cheikh Diop di rafetlu taxawaay ak seen taxawaay mais pratique yi ku mel ne Racine Talla di dox di ko def danañu dem ba maanaam nit dootul am xalaat yëkkati kàddu ca fa nga ne di liggéey ñaar nag mooy lii gis nii. affaire royaume lañ bëgg a indi nooteel lañ bëgg a indi te nag dafa am yoo xamee ne dañ koo am ba pare duñ ko négocier waat mhm. nekkatuñ ci njàppum jaam xewi na mala yi sax dañ leen a jox cër dañoo am mhm. ay droit bés bu na ñu wote ay assemblée nationale droit réew mii nit ñi dañoo am sañ-sañ ñu respecté seeni droit nit ki am na droit syndiqué nit ki am na droit mais booy syndiqué ça ne veut pas dire que da ngay def lu la neex mais da koy teg ci yoon linga xam ne ay texte ku ne nañ ko respecté bàyyi jaay doole gi te pratique yi ma gis mooy am soleil di am RTS di am ci média d'état yi sagalul sax état bu Sénégal ndax nag ñun ñeneen a waroon a jóg ñu leen di dëfal mais xoolal mitu RTS ni mu ni mu ni mu commencé yàqu ah ku jógaan RTS nga bëgg ñëw da nga daan génn nekk pay ci sa promo euh, fële sës si ñu indi la RTS mais les gens léegi boo leen waxee ils préfèrent dem ci yeneen boîte yi mais loolu jaaduwul kon RTS RTS Sénégal la nañ ko delloo Sénégal yi liggéey ñiñ jugal frigo ñu génn leen ci frigo nit du pour frigo ndox ak lu sedd la ñuy def ci ay frigo ak yàpp yàpp sax waruñu ko denc ci frigo lu yàgg ñun ay nit lañ ñun ba ñu yàllay sàkk sàkkuñu pour frigo Ablaye Mbaye Peex wax na ko fi tey RTS même boo fa liggéey boo fay génn sax dañ lay toroxal nga génn fa xool leen retraité tey am na ci ñoo xamee tey condition yi ñu génnee RTS kenn mënu la ko wax ah te liggéey lépp li ko Patrick Mendy ni lu mu defalul RTS. mais kooku boo ko sagalul. nga ñëw toroxal ko Ablaye Fofana Seck anamu. mais du ngeen posé wu question ci nit ñi ne woon RTS. retraité wuñ de ñoo ngi fii di dégg li may wax ñoo ngi seen kër tëdd. yow ngay buur di bummi yor sa yat rek di dóor. je pense que li nga wax leex na lool ñun ñëpp ñoo ko déggandoo. di euh, euh, la remercier si dalal gi ñu dalal fii ci ak disponibilité bi vraiment di leen ñaanal aussi euh, yàlla def ngeen génn si jafe-jafe yi génn ci problème bi donc ñu ngi leen di dox dig daje ba yeneen émission incha allah jërëjëf.